sa ndigg parce que nag loolu mooy yoon loolu mooy loi maa ngi leen di encourager di encourager encore une fois le front et di wax ne restons unis benn adversaire la ñu am c'est le président Macky Sall et il doit débarrasser le plancher le 2 avril incha allah jërë salaamaaleykum mbokku presse bi euh, salaamaaleykum suma naataango way politique yi ak mbokku société civile euh, suma wax euh, du sori noonu ñaari poñ rek laa bëggoon a aborder ñi ma jiitu fii wax nañu ko sànq le 2 avril au plus tard à 23h59 Macky Sall doit quitter le pouvoir tey gis ngeen ko. dayoo assemblée bi nga xam ne moo fi teew tey wane ni tey légitimité bi ñun ñoo ko yor boo jëlee liste bi yëpp tey nga xool force vive yi waxuma syndicat yi ñeneen assemblée bi amoon jam ñaajo ëppul légitimité ñi nga xam ne ñoo fi toog maam président moom moo ko jiite woon kooku ëppul gëdd ëppul maqaama parce que gu assemblée constituante foofu fu mu ñuy yóbbu moom mooy le 2 avril au plus tard à 23h59 Macky Sall bu dee entre-temps démissionné wut nguur gi tey ku jë politique bi force vive yi danañ jël seen responsabilité parce que suñuy lenge du ñu nangu kenn sànni ko ci suuf bu dee pare pour organiser élection ñun du ngi di jort ni Macky Sall dana delloo si xelam dana organiser élection nu ko conseil constitutionnel digalee avant le 2 avril lu tax ma wax ko moom mooy tey discussion yu am jam ñaajo mënta soppi dara ci li nga xam ne moom la conseil constitutionnel teg madame Aminata Touré wax na ko sànq parce que décision boobu dafa tënk conseil constitutionnel ci boppam moom la ñuy woowee l'autorité de la chose jugée maanaam article 92 conseil constitutionnel fàttali na ko cela s'impose au pouvoir public muy assemblée nationale assemblée nationale amatul benn droit jël benn loi pour jéem a loolu en cause ça s'impose à Macky Sall qui doit sans délai organiser l'élection mais également ça s'impose aux autorités administratives comme ni ñu ko waxee maanaam préfet sous-préfet gouverneur mais lu ci gën a yéeme moom mooy conseil constitutionnel mi nga xam ne moo teg dogal bi mënatu ci dellu ginnaaw problème boobu cour constitutionnel yi tranché nañu ko muy beneen muy conseil constitutionnel français depuis 1962 mu ñëwaat en 1988 ak 89 ak ci décision subséquente yi donc loolu moom mooy autorité de la chose jugée maanaam bu ñu xesee technicité bi day tënk conseil constitutionnel mënatuñ ci dellu di ci yokk wala di ci wàññi tey benn possibilité la am moom mooy mu wéy candidat yi nga xam ne ñoo fi loolu du loolu kese maanaam article quatre-vingt-douze fu doole bi di génnee moom mooy dafa ne ça pose donc autorité de la chose jugée bi daa am leneen li nga xam ne def ci yokku moom mooy autorité mooy force de la chose jugée maanaam décision boobu day tëgg amuñu possibilité loolu moo tax ñuy njort ni ndaxam nee na day dem ñu ngi koy ñaanal yàlla teg ko ci yoonu jàmm mais bu jéemee ba élection amut ñun dinañ jël suñuy responsabilité teg nañ benn comité d'experts bi nga xam ne mu ngi ciy saytu et que sénégalais yi nañu taral seen xel fii ñu mën a gérer état xam nu nation di doxee xam nu relation internationale yi di doxee ñoo fi nekk nañu jàpp ni du ñu tuburanke njiit kooku mooy pëj bu njëkk bu ci mujj moom mooy mbirum loi amnistie maa ngi koy fàttali sànq man nekkoon naa avocat wu collectif des victimes des violences électorales waaw ma ba muy prêter serment maa ngi woon King fat Palace ci ngoon sa ba muy def cérémonie ci salle des banquets di fêter maag ba ma Diop mi nga xam ne yal na ko yàlla yërëm fan yi passé génn na na papaay dem si yàlla Mamadou Diop ñu ngi woon ci cabinet doyen des juges d'instruction ci ngoon si Radisson mu ne dëjë na victoire am aux victimes des violences électorales te yéen a ci teg seen gët à du bilan moom mooy président bi nga xam ne moo ëpp passif ci violation droit de l'homme yi ci ji fi dee ci nguur mais li ci gën a yéebe moom mooy ba muy dem alors que dafa waxoon ne mandature am da koy teg ci viol ci contre impunité mu ngi teg loi bi nga xam ne day assurer impunité mais loolu du sotti parce que ñun taxaw nañ pour xeex ko sur le plan international parce que boo leen liiree statut cour pénal international foofu lay tëjee ñoo njëkk a signé statut boobu boo leen xoolee ci préambule bi dafa ne Sénégal dafa am obligation bañ a adopté loi amnistie bi nga xam ne day assurer impunité contre les crimes contre l'humanité foofu laay tëjee donc di leen jaajëfal ci déglu bi di leen wax ne la certaine date ñu jël suñu responsabilité bu ci yeggee jërëjëf. merci maire on va laisser la waaw asalaamaaleykum xam naa ne du ma yàgg euh, je vais parler peut pas plus mais dama bëggoon bala may commencer euh, wax li nga xam ne moom moo ñu fi dajale tey euh, ñuy jaale sunu mbokk wa Sénégal yi nga xam ne seen gaal dañ doon jëloon gaal di dem Espagne xaw ma dañ doon dem Espagne wala wala Italie seen gaal gi suuf ñu di leen jaale seeni mbokk tout ñi fi nekk ñëpp mën naa wax ci seen tur ñu di leen jaale bu baax seen i mbokk di leen ñaanal yàlla mu xaare leen àjjana mais aussi di wax ni naqar la pour ñun waa Sénégal chaque jour chaque semaine chaque mois ñu gis sunuy doom yu génn réew mi dugg ci ay gaal di ñàkk seen bakkan parce que amuñu ci réew mi li nga xam ne neex na leen amuñu ci réew mi ay opportunité pour mën fi toog pour mën a liggéey ba mu jaral leen ñuy sacrifier seen dund pour dem feneen muy naqar ci waa réew mi di naqar ci waajur yi di naqar ci ñun ñii nga xam ne dañu bëgg réew mi am ay opportunité pour sunu jeunesse am ay opportunité pour waa réew mi ñu toog fi tabax sunu réew dafa réew mu mucc ayib li muy wone mooy échec échec total ci politique de jeunesse échec total ci politique d'emploi échec total ci politique de gouvernance donc loolu may tàmm di wax xale yi bu leen demati fenn parce que ñi tax réew mi demee nii léegi ñu abal ñu soreetul ci ay fan la la toll xale yi ñu toog ci réew mi ñu defar réew mi ñu tabax réew parce que dañu leen soxla pour construire notre pays loolu laa bëggoon commencer li ci des mooy je pense ñi wax yëpp wax nañu ko li fi des tey mooy ñu dellu tënku ci loi ñu dellu tënk ci constitution mooy lan décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel jëloon te madame le premier ministre wax ko léegi mooy élection bi président Macky Sall da ko war a organiser avant la fin de son mandat leneen lu mu def sant ñu ko ko wax naa leen ko keroog donc ma jàpp ne ñu ci loolu rek la ñuy continuer di ci tënku di woote à une mobilisation nit ñi waruñu bàyyi waruñu bàyyi ñu ñuy proposer yeneen date waruñu bàyyi waruñu fléchir mobilisation bi nga xam ne ci la ñu nekk depuis le début taxawaay rek moo fi des wax amatul na wax Sénégal génn taxaw kom ñëpp. ni ko defee dans le passé donc di wax ni loolu moo fi des ba élection bi ñu organiser ko avant la fin du mandat président amul lu muy daw amul lu muy tiit de transmetre le pouvoir comme ni ko ko transmettre mu def passation de service en bonne et due forme loolu rek la ñu bëgg bëgguñu leneen donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax la mobilisation continue du ñu bàyyi tant li nga xam ne moom lañu ñu bëgg euh, amul may sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum. caprimètre incliné sur la mémoire de notre disparu de Saint-Louis. Euh, je voudrais déjà me réjouir que toutes les composantes